ila yawmi ddin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu eh, di leen siyaara di leen dalal jàmm ci barab bu tedd bi fa yéene dikkaat ak yéen ci jataay yu am solo yi nga xam ne daañ ko faral di amal ci waxtu mel ni ci weer wu tedd bi di siyaare suñu kilifa yu tedd yëpp di ci gisal seex Muhammadul Muntaqa xafidahullah waraa di ñaan yàlla mu doon ko kàttan ak ak wér kon xam naa tey dañuy ñëwaat ak ci beneen tomb bu am solo boo xam ne tomb bu yitteel la tomb la boo xam ne jullit bi ne war na ci bàyyi xel ndax mën na koo gaar wala mën na cee séq ak keneen wala mën naa daal bokk ci ak dundam mu war a xam lan moo ciy taxawaayam ak lan la ca lislaam wax ak naka lay demee muy loo xam ne kon ab bind lay doon day jëm rek ci bokk liggéey nit ñoo xam ne dañuy daje boole seeni alal ngir seq ab liggéey boo xam ne ñoo koy bokk ñu koy wax euh, asharika ci arab wala société xeet yi nga xam ne am na ci ak àtte yi nga xam ne moo ci nekk loolu lañ bëgg waxtaane tey xam naa ki nga xam ne moom muy koy traiteel di suñu mbokk koo xam ne xam nañ ko itam ci barab bi muy sëriñ Abdul Qadir Bousso sëriñ Abdul Qadir Bousso moom moo ñu bëgg a waxtaanal ci asharikatu anwaun wa ahkam muy koo xam ne ni mu ko waa dëkk bi baaxoo rek rawatina doomi soxna yi biñ maree jàng alxuraan fii la jàngi alxuraan ba mokkal ko ci waxtu teel njàngum xam-xam itam li ci ëpp ci dëkk bi la ko jànge rawatina ci daara yi sëriñ Aafiya Buso fa la jànge njàngum majlis ni ko baaxoo mboolem li ëpp ci téere yi ak fànni xam-xam yi waaye jaar na fii itam ci daara ji nga xam ne moom mooy ndaam jàngukaay bu mag boobu nga xam ne mooy jàngukaay bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mourtada moo ko taxawal foofu itam jaar na fa bala am fa la amee sahaada i'daadiya fa la amee itam baccalauréat bi mu ci al mamlaka al maghribiya ci jaamiatul qarawiyyin doon jànge ci kuliya sariya jàng na ba am fa licence waaye continué waat itam ba am master bi mu amee master itam tomb bu am solo boobu nga xam ne ci la bindoon yaakaar naa ñu bari xam nañ ko muy fatawaa yi nga xam ne dafa jóge ci ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu wa ardaa mu dajale woon ko def ci liggéey bu am solo taxqiq ko taxqiq ilmi ba mujj nekk loo xam ne sax euh, euh, génne nañ ko ba tasaare ko ci turu Rawdu Riyaahiin muy liggéey bu am solo kon moom foofu la jànge ci Maroc ba am fa ay sahaada yu kawe jaar na itam ci mahad boobu nga xam ne mooy Mohamed Mohamed Sadis nga xam ne mooy takwin al aima wal mursidin wal mursidaat jaar na fa ba génn fa ci at yi waaye jaamia Mohamed Xaamis itam ñu ngi doon jàng kon moom mel na ne xam-xam yëpp baaxoo jaar rek jaar na fi moo xam njàng mi nga xam ne mooy njàngam cosaan mi di majlis bi wala njàng mi nga xam ne mooy njàngum école benn bi ca jàng na ca ba géeju ca kon kooku mooy Sëriñ Abdul Xaadir Buso ci gàttal ci ak tënk euh, mu bëgg ñoo ñëwal nag ci tomb bu am solo bi nga xam ne moom laa wax léegi muy rek bokk ab liggéey séq ab liggéey kenn ku ne joxe dara moo xam la ngay joxe alal la wala sa doole la waaye ngeen séq nga séq kook ñeneen loolu yan xeet moo ci am ak yan àtte ñoo ci nekk tomb bi nag tomb bu am solo la wax ne julli bi ne war na ci bàyyi xel ndax mën na laa gaar wala mën ngaa dajeek moom lu bari bari ci sa dund nga war a xam naka la war a tëddee ci islaam loolu daal moom lañ bëgg waxtaane ñu ngi ñaanal sëñ Abdul Xaadir yàlla defal ko kàddu gu leer defal ko jàmm kon sëñ Abdul Xaadir ñu ngi lay jébal kàddu gi bismillah bismillahi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin al haadi al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi ajmain jërëjëf sëriñ Abdul Ahad ñu ngi lay delloo nuyoo di sof suñu kàddu ci sa kàddu di nuyu mbokk yépp moo xam mu ñi fi teew ak ñi topp ak fu ñu mën a nekk ñu leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaye di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di ñaan suñu boroom defal ñu kàttan ak man-man ba ñu àggalee ko coobare aku e, kàttan goo xam ne lim ci dëxali yépp danañ ko am ci barkeb sëriñ bi waaye ndokkeel ak ñooyu yëpp ñu ci jiital suñu kilifa Cheikh mun taxa di ko ñaanal suñu boroom gën koo tëbb kàttan gën koo tëbb wér ba mu sottal li mu yëpp ànd ko kilifa yëpp waaye ànd ko taalibe yëpp di wax rek ne comme sëriñ Abdou Lahad ni ko waxee tomb bi bind la boo xam ne dañoo jàpp rek ne dañ koy nafar waaye bu dul loolu yaakaar naa ne waxtaan moom boroom xam-xam moo koy def jàngale it boroom xam-xam moo koy def kon dañuy jàpp ne daal tey dañoo delluwaat ca daara ja rek toog ci suñuy kanamu kilifa yi ñi daan jàngal di nafar ñuy dégg te yaakaar naa bu ma ci tuddee sëriñ Afia mi nga xam ne lu ñu xam rek la ca ëpp ci moom lañ tàmbalee. ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax di ko nuyu di ko jéggulu ci kàddu yi ak it kilifa yi fi teew yépp sëriñ Abdou Lahad ni nga ko waxee tom bi ñuy waxtaane mooy asharika te mooy ànd bokk liggéey muy tomm nag bu am solo boo xam ne liy wane solo si bari na bi ci jiitu mooy daanaka téere fiq boo dem rek danga cay gis lu ñu tudde baabun fi sharika wala baabu sharika dañuy jagleel ak buntu boo xam ne ngir nu ñuy bokkee ànd liggéey rek lañ ci jàngale ci jamono yi fi yonent bi sallallahu alayhi nekkee ba ni mu fi saxaaba yi wootu ko ba ni ñu làqoo ñëw ci seen ginnaaw ñépp daanañ créer ay société daanañ bokk di liggéey daanañ bokk ànd di liggéey benn ñu teg alal wala ñu bokk ay man-man xëy na li wutale jamono yu njëkk yi rek ak suñu jamono yi léegi mooy jamono yu njëkk yi moom société bu daan juddu rek wala bokk ànd liggéey bu daan am rek daf daan amee ci anam goo xam ne day tënku ci njàngalem lislaam bu dee léegi nag société yi am ak bokk ànd liggéey yi am daanaka yu ci ëpp day sosu ci anam goo xam ne du tënku ci yenn tënk-tënk yoo xam ne lislaam moo ko teg du dépare ci yenn bunt yoo xam ne xëy na charia da koy nos loolu kon seetlu bu njëkk la ñaareelu seetlu bi mooy bu ñu waxee sharika léegi wala asharikaat te mooy société yi wala entreprise yi lu ci baree bari dañ koy jàngat ci ay anam yu wute mën nañ koo jàngat ci anam nu ko lislaam gise mën nañ koo jàngat ci anam nu ko yoon tërale mu li ñu wax droit mën nañ koo jàngat tamit ci ni ko nit ñuy sose njëkk yoon di ko nos yoon di ko tëral di ko organiser ñetteelu seetlu bi mooy képp koo xam ne yaa ngi dund rawatina ci suñu jamono ji da gis ne sharikaat yi wala bokk aan liggéey yi mi ngi wuute mi ngi sosu mi ngi juddu mi ngi am lu bare bari taxawut taxawut rawatina nag ci réew yu tugal yi nga xam ne daanaka ñoom tënk amuñ leen lu leen di tënk daanaka lépp daal loo xam ne rek dëppoo nag li xel baaxoo nangu nit ñi baax baaxoo koo jëflante ñoom jàpp nañ ne mën nañoo liggéeye noonu yooyu yëpp nag dafay wane ne kon tomb bu yaatu la bu mat a waxtaani la waaye bu mat a xoole ci ay e, côté yu wuute la ci biir loolu moo tax bu ñuy seetlu ci ay gëstu dañuy gis ne gëstukat yu bees yi ñu tuddee ay boroom xam-xam yu bees bu ñuy gëstu euh, xeeti tomb yu mel nii dañ koy gëstoo ci euh, li ci ngir yépp wax ngir rek bëgg xool naka la ñuy layale bu fekkente ne ab société wala ab bokk ànd liggéey dafa sosu ñu xool nan la ñuy mën a fexe ba mu dëppoo ak lislaam moo xam ngir mee la ca dëppool wala ngir mee wala ngir mee en tout cas bu mu génn rek njàngaleem lislaam waaye nag ñun comme dañ ñoo tënk ci mashabu imam malik ku tedd gi def suñu tënk tënk ci masab imam Malik ñu ci jële suñuy ballalukaayu jàmm yàlla ci ni ko masab bi déggee yaakaar naa waxtaan yi foofu rek lañ koy tënk dañu xool kon yenn ci ay bokk ànd liggéey yoo xam ne fiq nos na ko rawatina fiqul malik yi bu ko defee ñu leeral ko charte ya ca am xeet ya ca am atte ya ca am buñ noppee nag incha allah tëjee ci junj yenn ci ay société yoo xam ne léegi xew na ak nu ko lislaam gisee bu ñu noppee daal di mujjee incha allah yenn charte yi nga xam ne képp koo xam ne bëgg ngaa bokk ci société ak bu mën a doon war nga koo sàmmante ndax mooy tax bokk ga dagan mooy tax société bi tamit lislaam mën koo nangu ci gàttal bu ñu waxee société mooy lan bu ñu ko waxee rekk dafay firi ñaar yu jaxasoo yu ràbbaloo yoo xam ne kenn xàmmewut kenn du ko xàmmee ci boo ko boo ko tasut loolu mooy al ixtilaat wal loolu lay firi léegi nag loolu mën naa amee ci anam gu baree bari ñaar mën nañ koo séq mbooloo mën nañ koo séq li ñu bokk it mën naa nekk ay kër mën naa nekk ay suuf mën naa nekk ak jur mën naa nekk marchandise mën naa nekk wurus wala xaalis waaye mën naa nekk lu ne léegi bokk gi fu muy jóge mën naa jóge ci lu luñ donn mën naa jóge ci loo xam ne dañu ko may wala ñu sarax ñu ko waaye mën naa jóge ci loo xam ne dañu cee waxtaan bu juboo loolu moo tax bu ñu demee ci mësëb imam malik dañ naan ñoom sharika ñaari xeet la am na bu yaatu boo xam ne rek mooy loo xam ne dañ nga koo bokk ak nit loo bokk ak moom rek yéen a ko bokk moo xam dangeen ngeen koo bokk donn moo xam da koo bokk màng moo xam da ngeen ko mën a bokk bu dee sharika bi tax ñuy wax nag nga xam ne li koy jur mooy waxtaan ba juboo moom loolu la ñuy tuddee sharikatul aqd loolu mooy ñaar ñoo xam ne dañoo waxtaan ba juboo ngir fas yéenee liggéey bu ñu amee bénéfice bokk ñaar waxtaan ba juboo ngir fas yéenee liggéey bu ñu amee bénéfice bokk noonu la ko ibnu arafa xamle noonu la ko xataab xamle ci mawhibul jalil bi mu sarawee xalil dafa wax ne société bu ñu ko waxee mooy loo xam ne day am ci diggante ñaari nit te am gi ñu am gi mi am ñoom ñoo ko ñoo ko taamu léegi jaxase seen alal wala seen doole ngir wut bénéfice euh, boobu ñuy wax nag muy charikatul aqd mooy société bi nga xam ne dañ ciy waxtaan ba juboo ci nos ko xool nu ñu ciy liggéeyee bu ñu ko waxee ci ni ko Cheikh xam xamle mooy idnun fi tasarrufi lahuma maa anfusihima mooy kenn ku ci ne ci ñaan ñi bëgg ànd liggéey dangay ngay digal sa moroom ne ko nañ bokk nañ ànd bokk liggéey ci alal ji wala nañ ànd bokk daan suñ doole wala nañ ànd bokk daal am anam goo xam ne dañ ciy liggéey bu ñuy liggéey nag lépp loo def day mel ne maa ko def yow it lépp lu ma def day mel ne yaa ko def mooy loolu mooy lahuma maa anfusihima mooy euh, ñun ñaan ñëpp it ñooy bokk di defandoo ñooy bokk di defandoo loolu kon loolu mooy bokk ànd liggéey mooy kenn ku ci ne da ngay jox sa morom ndigal ci alal ji ngeen séq teg ko wala ni ngeen bëggee daane doole kenn ku ci ne da ci jox sa morom ndigal ci mu jëfe ci mu def ko te bu koy def it day jàpp ne yow lay defal yow it booy def da ngay jàpp ne moom ngay defal loolu nag am na ay façon yu baree bari danañ ci ñëw incha allah waaye ci gàttal loolu rek mooy société kon mooy sharika mooy bokk ànd liggéey mu am solo loolu nag solo si dana feeñ ci juróomi anam xam nañ ne nit comme ni ko wolof di waxee lu kenn di man ñaar ñoo ko dàq bari na ñoo xam ne seeni naal ak seeni bëgg-bëgg la tax sottiwut mooy dañ caa wéet léegi nag société bu amee kenn ku ci ne indi sa doole indi sa alal mën naa tax yu baree bari ci yuñ bëgg a réaliser mën nañ koo réaliser ñaareel bi mooy bari na ay projet yoo xam ne kenn mënu koo financé pour ñu am financement bi il faut mbooloo bokk kenn ku ci ne indi la nga am waaye joxe it na nga manee ñetteel bi mooy société saa yu amee ñi ngi ñi ngi joxalante ay expérience kenn ku ci ne yaa ngi wane sa xam-xam yaa ngi wane sa man-man loolu dafay tax euh, aw askan jëm kanam waaye dafay taxit li ñu bokk wala li nga xam ne moom lañu bëgg a euh, sottal sottal ga day yomb dana tax it ñu mën a exploiter suñu richesse koom-koom bi ñu am ak tamit nit ñi ñu am li ñuy tudde ay créer d'emploi bu fekkente ne créé nañu ay société yooyu yëpp dana ci mën a sotti ci gàttal def wala créer ay société bokk ànd liggéey bokk na ci li muy indi mooy dafay tax am réew jëm kanam ndax alal yi ñu dencoon yépp day génn tege tege ci taabal ji xam-xam yépp ak man-man yi day génn tege ci taabal ji bu ko defee nag ñu xool lan lañ ciy produir lan lañ ciy liggéey liggéey boobu dana jural ñi nga xam ne ñoo participé woon dana leen jural jural njariñ ndax bénéfice bu ca amee ca ñoom lay dellu waaye dana jural tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy benn benn yi nekk ci société bi dana leen jural njariñ ndax dana tax ñu mën a liggéey ca société yooyu waaye dana jural njariñ peuple bi yëpp wala réew mi yëpp ndax dañu wax ne euh, benn réew wala benn mbooloo du ñu jëm kanam lu may dañoo am puissance économique dañoo am doole ci wàllu alal te doole ji nag li koy mën a indi li koy gën a mën a dooleel mooy ñu bokk ànd di liggéey kenn ku ci ne wut domaine boo xam ne ca ngay liggéeyee di ko di ko jàppalee saw askan. liggéey boobu am na ay xeet ci fiq yu baree bari xeet bi ci jiitu ci tënk mooy li ñu tuddee charikatul amwaal charikatul amwaal mooy lan mooy ñaari nit. wala lu ko ëpp dañuy waxtaan ba juboo ne dañoo bëgg a teg alal ngir commerce ci ngir yaxantu ci loolu mooy charikatul amwaal mooy bokk goo xam ne la koo lal dëgg dëgg dëgg mooy financer projet financer ak projet nga xam ne kenn ku ci ne ci ñaar ñi ko séq wala mbooloo mi ko séq da ngay teg alal daan ne ayoo nañ ci liggéey bu ko defee nag yéen ñaan ñëppay ànd teg wala yéen mbooloo mi yëpp ay ànd tegandoo waaye yéen ñaar ñëpp wala yéen mbooloo mi yëpp yéen a ciy ànd di ci liggéey ak donte sax bokku leen barab bu ngeen di liggéey léegi nag bu ngeen demee ba am bénéfice ngeen bokk bu ngeen demee ba perte amit ngeen xam ne kenn ku ci ne perte nga la nga xam ne moom nga tegoon kon loolu mooy charikatul amwaal léegi nag dafa bari ay xeet xeet bi ci jiitu te gën cee siiw te gën cee tusaaroo moom nañu tuddee sharikatul mufaawada sharikatul mufaawada ci gàttal mooy lan sharikatul mufaawada mooy ñaar dañuy waxtaan ba juboo wala mbooloo ne dañuy créer société léegi nag ni ñu ko créer mooy kenn ku ci ne da ngay teg alal kenn ku ci ne da ngay joxe dara bu ñu joxee dara nag dañuy bàyyi ñëpp ñi xas ñi bokk ci société bi ñi bokk ci société bi ñëpp dañ leen di bàyyi kenn ku ci ne nga xool mooy def ba société bi avancé ak noo ko mën a defee nga xam ne duñu la tënk ci dara moo xam sa moroom maa ngi teew moo xam teewut lépp loo mën a def rek ba ba entreprise bi gën a jëm kanam ba société bi gën a jëm kanam da nga koy def ngir liggéeyale ko euh, projet bi nga xam ne mën nañu bokk nga xam ne boo gisee ne léeg-léeg jaay ci mooy doxal liñ séq nga jaay boo gisee ne jënd moo koy doxal nga jënd boo gisee ne dem luye ji ci dara moo koy doxal nga dem luye yi ci dara boo gisee ne jël ci dara luye ko moo koy doxal nga dem def ko boo gisee ne danga cee war a leble wala danga cee war a leb loo gis ne daal boo ko defee rek société bi dana euh, jëm kanam dana avancé nga def ko loolu mooy sharikatul mufaawada léegi nag yow loo def rek day mel ne sa moroom mi ngi ko séqal nga ko defal moom it lu mu def rek day mel ne yow la ko defal léegi nag moom sharikatul mufaawada boobu mooy bokk gi nga xam ne duñ tënk kenn dañu xool rek kenn ku ci ne ci ñi ko séq loo jàpp ne rek mën na jëmale kanam liggéey bi nga def ko dafa am charte buy tax mu wér charte bu am solo charte bi li koy tënk mooy képp ku bëgg képp ku bëgg a dugg ci société boobu képp ku bëgg a bokk ci ànd bokk liggéey googu fexeel ba ñett ñeent yi na tolloo mooy lañ cay liggéey ak bénéfice ba ak bu perte amee ak alal jiñ ci teg yooyu force dafa war a tolloo dañ naan kenn ku ci ne la nga teg ci ab société alal ja ca joxe nam toll bénéfice ba buy ñëw lu toll noonu ngay am ci bénéfice perte buy am lu toll noonu ngay am ci perte la ca war a def it nga ca war a liggéey lu toll noonu lay doon ci misaal bu fekkonte ne dangaa joxe ci capital bi lu tolloog vingt-cinq pour cent dañ naan la war ngaa liggéeyal société bi lu tolloog vingt-cinq pour cent bu ko defee bu bénéfice amee nga am ci lu tolloog vingt pour cent bu perte amee it nga perte lu tolloog vingt pour sent noonu lañ koy waxee loolu nag mooy lii tax société bi wér bu amul rek dañ koy yàq du wér moo tax Cheikh English di ab Maliki bu siiw mus nañ koo laaj lu mel noonu dañ koo laajoon ne ko ñaari nit buñ séqoon ab liggéey tolloo luñ teg waaye nag dañoo chart ci kenn ki ne ko yow rek yaay liggéey ki ci des moom du liggéey te bu bénéfice amee ñu yéen a koy bokk dañ koy xaaj ci digg bi kon ñoo tolloo alal waaye kenn nay liggéey te bu bénéfice amee dañ koy bëgg a bokk Cheikh Anglish ne leen déedéet loolu du wér bépp société wala bépp entreprise boo xam ne dañ ko tabaxee noonu dañ koy yàq day yàqu ndax lan la ma ko layalee mooy ndax dafa wax ne la nga war a liggéeyal société bi dafa war a tolloog la nga joxe ca alal léegi nag lu mel noonu bu ñu ko teelee xam dañ koy yàq bu fekkente ne dañ koo yeex a xam dañ koy dab dabaatal ni ñu koy dab dabaatale mooy dañuy xool ki doon liggéey ñu ne ko kaay ba mu ñëw ñu ne ko kon dangaa mel ne kuñ jàppoon surga di la liggéeyloo léegi bu ñu woowoon nit di ko liggéeyloo ñaata lañ ko war a fay bu buñ nee nangam sàngam lañ ko war a ñu jël xaaj ba jox ko ñu jël xaaj ba jox ko bu ko defee la des ca bénéfice ba mu bokk ko ki nga xam ne moom la seqaloon liggéey sharikatul amwaal la ñuy wax mooy bokk teg ngir liggéey léegi lan la ñuy teg bu ñuy teg lan lan mooy li dagan ñu teg ko ak li dëgganut ñu bañ koo mën a teg liñ mën a teg mooy lépp loo xam ne lislaam tudde na ko alal moo tax fuqaha yu maliki yi dañuy wax ne mën ngaa teg ay dinaar ci seeni jamono dinaar moo xewoon mën ngaa teg dirham mooy mën ngaa teg wurus mën ngaa teg xaalis kii mën naa génne wurus kii génne wurus ñu créer entreprise kii mën naa génne xaalis kii génne xaalis ñu créer entreprise beneen anam it mën naa nekk mooy kii génne marchandise kii génne marchandise masalan mën naa nekk société boo xam ne Euh, ñaan ñi ko bëgg a seq ñëpp kenn yoru ci xaalis liquide waaye boobaa dañ naan la indi li nga yor kii indi lim mu yor bu ko defee ñu xayma ko kii mën naa yor ay oto kii yor ay pàkk kii mën naa yor euh, marchandise moo xam ne mën nañ cee commerce kii yor laneen boobaa tamit dagan na waaye li dëgganut mooy boole ñaar yoo xam ne sañuñ leen a boole te mooy loolu mooy kii génne wurus kii génne xaalis wala bu doon suñ jamono yi nga wax ne kii génne euro kii génne CFA ñu bëgg a créer ab société loolu nee nañ dëgganut ci masabu Imam Malik dëgganut ñu ne leen nan moo tax ngeen ne dëgganut ñu ne bu boobaa kon day mel ni dañoo bëgg def benn mbir bëgg ca lëmas lu ca bokkut mooy dañoo bëgg a boole li ñu tuddee as sharika ak sarf dañoo bëgg a bokk ba pare bëgg a weccoo ndax ki indi euro moroom ji indi CFA moom lu mën a xew bala entreprise bee yëkkatiku bala ñoo commencé liggéey il faut ñu wecc ñu ñu def échange kon tey jii boo amoon ab moodu moodu bu nekk ci réew yi tugal bëgg laa jox ne boo xam ne bokkut ak sa monnaie ngeen kor ngeen créé ci entreprise ci ma imaam Maalik dëgganut kon na muy dagane mooy na ko indi wecc ko ko ba pare ba ñaari monnaie yi bokk lu ñuy weccee boobaa lay soog a dagan baneen it nee nañ dëgganut mooy ñaari ñam ci misaal bu ñu bëggoon a créer ab société ñu ne ñun kat juruñ alal liquide waaye kii am na dugub kii am na ceeb dañ naan dëgganut mooy ñaari ñam yu wuute ñu àgg sax ci ne même bu wuute wutoon bu fekkonte ne ñaari ñam yu bokk la dëgganut masalan ñu bëgg a créer ab société kii ne mën na maa joxe ñaari bërigo dugub kii ne mën na maa joxe ñaari bërigo dugub ci mësabu imam Malik nee nañ dëgganut loolu la muxtasar di wax naan laa bi dahabin wa bi wariqin wa bi taamayni wala wi tafaqa kii génne wurus kii génne xaalis dëgganut kii génne ñam kii génne ñam donte benn la dëgganut waa léegi lan mooy lay wi lan moo tax dëgganut li tax dëgganut layal nañ ko ay lay yu bari waaye lay wa ci gën a dëgër mooy bu ñu defee loolu daf ñuy dugal ci li malike yi wax bayu taami xabla xabdihi ndax ñoom dañoo jàpp ne société saa yu amee day mel ne kenn ku ci ne dangaa jaay sa moroom sa genn wàllu cër dangaa jaay sa moroom sa genn wàllu cër ci misaal bu fekkonte ne kenn ku ci ne dangaa génn ñaari bërigooy dugub day mel ne man dama laa jaay sama benn barigo nga jaay ma sa benn bërigo ndax loolu mooy tax ñu mën a jàpp ne ñun ñaan ñépp ñoo ko garanti loolu mooy tax ñu mën a jàpp ne ñun ñaan ñépp alal ñoo ko bokk kenn ëpp ci sa morom sañ-sañ te nag loolu bu amee bu fekkente ne kii dafa génne ñaari barigo kii génne ñaari barigo li muy indi mooy euh, te jaxasewuñ ko li muy indi mooy day mel nekkoon jaay naa la sama genn wàll nga jaay ma sama genn wàll te kenn récupéré wu ci liñ la jaay loolu mooy bayu taami xabla xabdihi te loolu dañ koy tere ci mësëb bi am nañu ko layale ku mel ne Ibnu Mawaas moom da koy layale ne loolu mën na indi jaxase lu bon ak lu baax waaye loolu euh, char euh, lay la boo xam ne dëgërut am nañu koy layale ne aw ñam dañoo war a tolloo ci bu ñu leen nattee dañoo war a tolloo ci bu ñu leen xaymaa te bu dee bu dee bu dee loolu pour mu am ci mu am ci euh, bu ñu bëggee créer société yombut léegi nag bu loolu amee teg nañ ba noppi kenn ku ci ne génne na xaalis wala kenn ku ci ne génne na matériel en tout bu mu nekk ñaari xaalis yu bokkut bu mu ñaari ñam créé nañ société bi ba noppi entreprise bi taxaw kenn ku ci ne loo sañ a def ci entreprise bi te doo ci tàggu sa moroom bokk na ci li nga sañ a def mooy coobarewu coobarewu nit ñëw bëgg dara ci entreprise bi nga wàññil ko ci dara loo doon jaayee ñaari junni ne ko mën naa la ko jaayee junneeg juróom-ñetti téeméer loolu dagan na loolu lañuy tuddee fuqaha yi loolu la ñuy tuddee al istilaaf mooy rek marketing ci suñu jamono ji ngir def marketing bëgg nit ñi miin la taamoo jënd ak yow kon bu boobaa day mel ne la ngay wàññi du lor entreprise bi du lor société bi waaye daf koy yokk dagan na it nga aale lu woyof comme ñu ñëw ab la ab sew wala ab wala bool wala yu mel noonu nga aale ko yooyu yëpp dara nekku ci nee nañ dagan na it nga def ñoom li ñu tuddee al ibdaa al ibdaa mooy bu ñu tegee alal ji ba mu tegee nga jël ci dara woo nit koo xam ne mën na la cee jëndal marchandise nga ne ko demal ma barab sàngam jëndal ma ci marchandise bu ñëwee société bi moom ko loolu dagan na nee nañ tamit dagan na alxiraat mooy liñ teg bokk ko ba pare nga woo beneen nit ne ko kaay ba mu ñëw nga ne ko jëlal lii nga jël ca dara ne ko jëlal lii nga dem liggéey ci loo am ci bénéfice ñu séddoo bu boobaa bu amee bénéfice danga koy jox xaaj bi beneen xaaj bi nga ñëw teg ko ngir société bi loolu dagan na maaliki yi nag nee na ñett yooyu balaa dagan day fekk alal ji bari ba xaj waaye bu ci xajut doo sañ a coobarewu doo sañ def doo sañ a yónnee marchandise doo sañ def li ñuy tuddee xiraat dagan na it ci alali société bi bu ñu ko tegee ba pare nga dénkaane ci koo wóolu wala nga jël ci dara dénk banque waaye nee nañ loolu kañ lay dagan mooy bu fekkente ne jàpp nga ne mënoo koo teel sa bopp ndax xëy na fi nga nekk amul sécurité wala xëy na yàlla bindal la càggante goo xam ne boo bàyyee alal ji sa loxo mën naa sànku ci say loxo boo boobaa dagan na nga dénkaane ko dagan na it bu ñu tegee alal ji ba pare nga créé waat ci beneen société bu ndaw loolu lu xoromu la waaye dagan na ñu teg alal ne nañ def nañ créer entreprise am lu nekk ci sa loxo nga woo yeneen nit créer waat ci beneen entreprise ne leen dem leen liggéey léegi nag bu amee bénéfice ñu bokk léegi bu amee bénéfice ñoom da leen jox seen wàll geneen wàll gi nga delloo ci ko ci entreprise bu mag bi wala ci société bu mag bi loolu dagan na dagan na li ñu tuddee al xaala mooy boo ñëwee fekk sa moroom mi jaay wala yow nga jaayoon dara ba mu yàgg gis ne daal walla ñu jaayoon la dara wala ñu jaayoon sa morom mi dara nga gis ne baaxut wala am na lu ci sikk nga dem xàcc ko loolu dagan na ak doon di amoo ci ndigalul ñi nga seqal liggéey bi ndax fii dañu yaakaar ne ku def rek sa moroom nga defal moo tax boo jaayoon dara it kenn ñëw delloosi ko di ko xàcc sañ nga koo jël nee nañ sax ak donte ki nga seqal liggéey bi nanguwut sañ nga ko ndax yéen ñaar comme ni ma waxoon sànq rek kenn ku ci ne da ngay mel ne ku wutu sa moroom dagan na buñ créer ab société di ci liggéey nga ñëw saxalal entreprise bi wala société bi bor ñëw ne ah diw sàngam kat yoreel ngeen ko nàngam boo boobaa dañ koy charte ñaari charte bor bi nga wax na ko mën a indil firnde ba noppi it ki nga bëgg ñu fay ko bor bu mu nekk koo xam ne mën nañ laa tuumaal ca moom ñu ne leen kuñ mën a tuumaal ci moom mooy kan ñu ne mooy ku mel ne mbokkam ku ko jege bu ñëwee jékki-jékki indi kayit ne sama doom wala sama baay bu wala sama nangam da koo yoreel dara nee nañ boobaa kenn du ko déglu bokk na ndax kooku dañu jàpp ne rek da koo bëggal dara moo tax ki noonu it koo xam ne dafa séq ak moom ak goro day goroom walla koo xam ne day soxnaam wala muy boroom këram ñu mel nii képp ku leen bëgg a saxalal bor ci ab société ci mësa bu imaam Malik dañ naan déedéet kenn du la diglu boobaa yow yaay dese responsabilité bi mën ngaa jaayee ci bor kenn di ñëw di jënd nga lebal ko bu ëllëgee mu fay la mën ngaa dem it jënde ci bor gis loo xam ne société bi soxla na ko nga dem jël ko bu ko defee joxe ab dele boo xam ne bu ñu bu bu bu jotee nga fay ko bu tegee alal tamit ne dañuy liggéey bokk na ci li nga sañ mooy partagé wu kii nekk ci barab sàngam keneen nekk ci barab sàngam ci misaal mën nañoo teg ne dañuy liggéey dañuy commerce kii teg 1 million kii teg 1 million muy 2 million bu ko defee kenn ku ci ñen ñu jox la dara kii féete Touba kii féete Ndar wala kii féete Ndar kii féete Ndakaaru bu ko defee lu ñu am ci bénéfice bu ñëwee daa koy teg ci taabal ji bokk loolu dagan na ñu xam ne it saa yu ñu bokkee teg alal ne dañuy liggéey kenn ku ci ne yaa wuutu sa moroom ci lépp loolu moo tax dañ naan boo demoon jaay yow kenn ki bokk ci société bi boo jaayoon ki nga jaayoon ñëw di ko delloo si fekku la fa sañ na ko jox sa moroom mam fa fekk ka nga seqal liggéey bi sañ na koo jox waaye nag am na ñoo xam ne foofu dañ naan ci kaw bu fekkente ne kala ko jaayoon dafay nekkut te dafa sori xëy na dafa tukki tukki bu yàgg ñoom bu njëkk dañ ko daan nattale ci lu mel ne fukki fan bu fekkente ne sécurité am na bu fekkente ne euh, sécurité amut ñee la da nga koy xaar lu tollook ñaari fan waaye nag lañ ko daan taxdiit naan ay fukki fan ak ñaari fan ak ñetti fan lu mel noonu jamono léegi mën na indi yeneen xalaat waaw heure yi mën nañ koo wàññi bis yi mën nañ koo wàññi boo bokkee nit créer entreprise wala ab société kenn ku ci ne teg teg alal ji ba mu tegee est que bu ngeen amee njaboot la ngeen leen di dundale ci alali société bi ngeen koy jël wala déet ci mësa bu imam Malik dañ naan waaw ci alali entreprise bi lañ koy jël wala ci alali société bi lañ koy jël ndax lan ndax dañ naan lu ci ëpp ñi nga xam ne dañuy boole seen alal ngir liggéey li ëpp ci liy am mooy seen alal ji yëpp lañuy def ci entreprise bi wala seen alal ji yëpp lañuy def ci société bi seen dépense su njaboot ci lañ koy jël waaye ci kaw charte bi wala ñaari charte yi charte bi ci jiitu mooy bu fekkente ne ñoom ñëpp amul njaboot na njaboot gi bokk ay at walla ñu toll nañ jege ay at jege ab lim kenn ku ci ne ñaari doom la am kenn ku ci ne mën nay jël ci alal ji di dépenser ay doomam kenn ku ci ne doomam ñaari at la am ba ñett mën naa jël ci alal ji waaye bu fekkente ne nag doom yu tolloowuñ kii am na lu tolloo fukki bant kii am juróomi bant rek dañ naan a ah, kon nag kenn ku ci ne na dem ak sa bopp kon nañ tolloo ay at wala kii yor ay waxambaane kii yor ay perantal dañ naan ah boroom waxambaane yi demal ak sa bopp ndax buñ ko bàyyee bu dépensé ci alal ji mën naa jeex wala mën naa lor moroomam mi nga xam ne ay perantal rek la yor bu yàlla dogalee ñu teg alal tamit ba tukki wala kenn tukki ci suñuy dépense yépp ci alali société bi lañ ko jël ci alal ji lañ ko jël moo xam li ngay lekk moo xam li ngay naan moo xam fa ngay fanaan ba ci sax sa transport lépp ci alal ji nga ko jël waaye lu ci man di am rek moo xam da ngaa bëgg a dépenser sa njaboot moo xam da ngaa bëgg a sa bopp charte bi ci ëpp solo mooy nga def ko bil abd mooy nga defe ko ci noo xam ne ku ñëw dana fekk dana xam ne nii ngay dépenser jaadu na liñ ciy bañ mooy ngay ngay doxale noo xam ne day nuru ak yàq ndax boobaa dañ jàpp ne dangaa bëgg a sànq société bi bu yooyu yëpp jàllee nag euh, nga xam ne d'accordoon nañ ci lu toll ne li ma joxe ci alal loolu lay liggéey bu bénéfice di am lu toll noonu laay am bu perte di am lu toll noonu laay perte d'accordoon nañ ci ba pare waaye dañoo commencé liggéey ba mu yàgg am ci koo xam ne yaramam daa neexut dafa wéradi bu boobaa nee nañ daggan na nga coo coobarewoo liggéeyal ko la mu waroon a liggéey wala dara ca la mu waroon a liggéey ba noppi téewut la mu waroon a am ca bénéfice lay am ba tey wala ñu commencé liggéey ba mu yàgg ñu gis ne am na ci ku bokk ci suñu entreprise bi koo xam ne daa toll ab diggante jamono daa neexut ci moom bu boobaa it dagan na euh, lam euh, nga wàccool ko la nga waroon a am ci bénéfice nga wàccool ko ci dara ci misaal 25 pour cent laa waxoon boo ko joxe woon ci alal ji 25 pour cent ngay liggéey bu bénéfice di am 25 pour cent ngay am d'accord nañ ci loolu commencé nañoo liggéey ba mu yàgg am ci koo xam ne dafa wéradi man nga ne ko ah man kat 25 pour cent laa waroon a liggéey waaye man na maa liggéey 30 pour cent may la cinq yi teewul incha allah bu bénéfice bi ñëwee man 25 pour cent rek laa ci am nga am 25 pour cent. bu ma gisoon ne daa tollub diggante mën na ma ne mën naa liggéey vingt cinq pour cent bu demee ba war a séddoo bénéfice ma am vingt pour cent rek sama cinq pour cent ma bàyyee la ko loolu nee nañ dagan na kon loolu mooy bu ñu ko tënkut bu ñu ko tënkut nga xam ne liggéey bi dañ laa bàyyi rek moo jàpp ne noonu la baaxee rek nga defee noonu léeg mën nañoo teg alal ba pare nag daa koy tënk loolu la tudde tuddee charikatul aynaan charikatul aynaan loolu la boroom muxtasar di wax naan wa in ishtarata nafyal istibdaadi fa inaanun inaan mooy zimaam mooy ak nos ak laab mooy ñu teg alal waaye nag kenn ku ci ne bala ngaa def dara danga nga ci am ndigalu sa morom day mel ni daf laa jàpp otaas doo sañu def dara te amoo ci ndigalam loolu lañ tuddee sharikatu lay naan ci gàttal mook biñ njëkkoon wax ñoo bokk ay àtte la nga sañoon fee nga sañ fii ba tey waaye li leen teqale mooy bu dee inaan bi ñuy wax masaahib yépp dëppoo ci ne dagan na mu faawada bi njëkk a wax nag moom dañ cee wute masab imam malik daganal na ko charte yooyu la ci teg ak àtte yooyu ñaareel bi mooy sharikatul mu faawada bi njëkkoon a wax moom danga nga koo bàyyee boppam bu dee bii nag moom danga nga koo tënk loolu mooy société bi njëkk mooy teg alal ngir liggéey loolu moo ci aju ci gàttal am na beneen société boo xam ne bu ngeen di wër téere yi ak lu ngeen mën a wër wër wër ci masab imam yi rek lañ koy fekk moom la ñu tuddee charikatul jabr mooy bokk goo xam ne force la bokk goo xam ne force la li ko waral mooy ci masab bi ñoom dañoo amuk seetlu ne lu ëpp ci commerçant yi rawatina ñi nga xam ne dañoo man seen bopp dañuy faral di jënd ay marchandises di ko dajale di ko stocké di ko denc ngir xañ ko ñi nga xam ne dañoo néew doole bu boobaa nag am na charte yoo xam ne bu dajee dañ naan commerçant bi nga xam ne moo jëndoon lu mel noonu denc ko dañ naan ko force dañ kiy boole kii nga xam ne loxoom jotewut gannaawam waaye nag day fekk mu ay charte daje moo tax ñoom bu ñu naan sharikatul jabr mooy lan mooy nit gis am marchandise moo xam ne baaxoo na cee commerce comme téléphone téléphone télé ay jaaykatu téléphone la gis téléphone boo xam ne baax marchandise moo baaxoo baaxoon na ca commerce mooy gis na téléphone ku koy jaay mu jënd ko waaye bi mu koy jënd am na beneen commerçant bu ndaw bu toog nii boo xam ne moom it baaxoo naa yëngu ci téléphone bi borom doole ji waxaale téléphone bi ngir jënd ko moom mii nga xam ne dafa néew doole waxut dara daa noppi rek dañ naan ko yow mii boo defee xuuf paa mooy boo jëndee téléphone yépp ba bàyyi woo xel kee nga xam ne bëggoon na ci ci masabu imam Malik dañ naan danga ko ciy boole force bu ci bëggee bokk da ko ciy boole force bu ci bëggee bokk kon loolu am nay charte mooy kon commerçant bu mag bi buy jënd li muy jënd na ko jëndee ci marché buñ ko ko fekkoon jaayee ko ci këram kenn du ne ko boole ci kenn ndax loolu privé la ñaareel bi mooy na ko jënd ngir commerce ci bu fekkoon tey da nga koo fekk mu jënd ay téléphone yoo xam ne da koo bëgg a maye wala mu jënd marchandise moo xam ne da koo bëgg ganale ay gan wala yu mel noonu kenn du ne ko da nga boole kenn ñetteel bi mooy fi ko jënde it mu bëgg mu bëgg mu bëgg koo commerce foofu masalan Touba la ko jënde mu bëgg mu bëgg cee defee commerce ci biir Touba ñett yooyu bu dajee moom mi nga xam ne moom lañ ci bëgg a boole it am na ay charte mooy na baaxoo commerce ci ndiis mii sawaay jënd na ci baaxoo commerce nañ ko ci xam bu fekkente ne day koo xam ne kenn xamu ko ci commerce wala ci leneen la daan yëngu bu fekkee ku jënd am marchandise am kenn du ne ko ci danga ko ciy boole. ñaareelu charte bi mooy ba koy jënd na teew bu fekkonte ne daa doxee soxlaam ba ñëw fekk sa waay kenn du ne ci na ko na ko ci boole ñetteel bi mooy ba sa waay di jënd it bu mu wax na noppi. bu fekkonte ne daa wax dañ naan kon défendre na boppam kenn bu ko défendre léegi charte yi bu dajee nag bu charte yi yëpp dajee ku jënd xuruf pa bàyyiwuloo fi sa euh, keneen ki dara dañ naan ko danga ko ciy boole léegi bu lànkee nag ñu ne dañ koy tëj lu tax euh, ulamaul masrif daan ne rifqan bi ahli ngir ñeewante ñii ñëw ci marché bi ndax borom doole ji bu ñu ko bàyyee mu jënd marchandise yëpp ki amul doole amul dara képp ku ñëwati ci marché bi rek moom moo lay imposer prix te boobaa ñëpp a ci lor moo tax ñu naan force ñu partager force ñu séddoo kon ñaar yooyu ci alal la aju léeg-léeg ay nit waxtaan dëppoo ne nañ ànd liggéey waaye nag alal amu ci dañuy ànd daan doole loolu la ñuy tuddee sharikatul daan mooy waxtaan ba juboo ngir ànd daan doole lu ñu am bénéfice bokk loolu nag bari na loo rawat na suñ jamono ji ndax daan doole bu ñu koy wax mën naa nekk lu ci wàllu yaram nga xam ne sa énergie ngay joxe mën naa nekk lu aju ci wàllu xel lu aju ci ay expérience ak xam-xam muy nag xeetu société boo xam ne tusaaroo na loolu rawatina ci suñu atelier yi ñu xam ci biir mécanicien yeeg menuisier yéeg yu mel noonu da gis ñoo xam ne ñoo bokk ay man-man wala ay tailleur yeeg yu mel noonu dañ dañuy bokk ay man-man ne ay wa nañ bokk ubbi place liggéey lu ñu am ci bénéfice bokk loolu mooy charikatul abdan balaa sañe wér nag day ami chart charte bi ci jiitu ci masab imam Malik dañuy wax ne balañ leen koo sañ a nangul charte bi ci jiitu mooy na ngeen bokk lu ngeen di liggéey na ngeen bokk lu ngeen di liggéey ittihaadul amal mooy na ngeen nekk ñaari tailleur masalan wala mbooloom tailleur ñaar ñuy liggéey ci pharmacie wala mbooloo ñaari médecin wala mbooloom médecin nangeen ngeen bokk daal ci li ngeen di yëngu bu fekkee bokku leen ci lu ngeen di yëngu na nekk métier moo xam ne dañuy mottalante dañuy mottalante misaal mu gàtt léeg-léeg mën ngaa dem ci atelier boo xam ne dañuy ñaw gis ci ñetti borom mbécc am na koo xam ne lu li ñuy enrigistre ak ni ñuy jëlee mesure ni ñuy natte loolu rek la xam boo ñëwee mu nattal la euh, enregistré tegal la yére bi na leen am koo xam ne mu ca machine ba rek lay toog am koo xam ne bu noppee mooy tapp bi toog mooy paase gis nga ñett lañ ñoo xam ne kenn bokku ci mbécce waaye nag seen mbécce benn mun cee dem bàyyi moroomam nee nañ lu demee noonu mën naa dagan waaye li ñu bañ mooy nga fekk ab menuisier fële ab ak ak akub mécanicien fële ne nañ boole place bi du ñu am bokk loolu dëgganut kon na ngeen bokk benn métier wala ñaari métier yi di di mottalante loolu mooy charte bu njëkk bi charte ñaareel bi mooy na ngeen bokk benn barab bu ngeen koy liggéeyee muy nag charte boo xam ne bari na ay wax loolu ci mu daw wana bu ñu demee dañu gis ne imaam Malik laajoon nañ ko ne ko ñuy ànd di liggéey ndax dagat na mu ne waaw bu fekkee ñoo bokk mbécce mi bokk fañ koy liggéeyee ku mel ne Cheikh xalil ci tawdix leeral na fa lu mel noonu saxal ko dëgëral ko waaye nag gis nañ ñeneen ci mashab bi ne déedéet loolu du ci charte bokk benn place moom du charte nañ bokk mbécc rek ak donte bokkuñ benn place waaye nag ci kaw na kenn ku ci na kenn ku ci ne ci ñaan ñi ko séq wala mbooloo mi ko ci séq na kenn ku ci ne am accès ci beneen place ba ci des na ci amu yoon na xam la fay xew bu loolu amee rek dagan na moo tax ci muxtasar bu ngeen di xool da gis ne Cheikh Khalil wax ju mujj ji la jël wajaazat bil amali mooy bokk ànd liggéey dagan na in ittaxada aw talaazama wa tasaawaya aw taqaaraba wa xasala taawunu wa in bi makaanayni ak donte sax ci ñaari barab la moo tax li koy tënk dañ lay wax na bu fekkente ne bokku leen benn barab bu ngeen di liggéey dañ naan ñaari charte yi moom na tase bu tasee rek dagan na ngeen ànd liggéey bu tasewut dëgganut ñaari charte yi mooy lan bu fekkente ne da ngeen partagé wu kii nekk ci barab kii nekk ci barab na ñaari barab yi bokk njarte nañ bokk njarte masalan bu fekkonte ne dañoo nekk ci kii dafa nekk marché Ocass kii nekk marché Sandaga mën nañoo jàpp ne ñoo bokk njarte waaye bu fekkee kii dafa nekk ci marché kii nekk ci koñ boo xam ne kenn du fa faral di ñëw dañu jàpp ne loolu du dagan kon ñaari barab bi nañ bokk njarte bu dee loolu dagan na ba noppi it kenn ku ci ne ci yéen ñaar na xam li xew ci ñaari barab yëpp ndax loolu mooy tax ñu mën koo tuddee société ak bokk loolu bu amee rek mu dagan bu loo ñaari sart yooyu nag bu ñu xëpp rek ñu ne la kon bokk leen barab bu ngeen di liggéeyee wala du dagan ñetteelu charte bi mooy loolu dafa am ñu koy charte rek ci masab bi donte téere yu bari du ngeen ko ci gis mooy liggéey bi ngeen di liggéey na bokk ay qualité masalan mën ngaa gis ñaar ñu ne dañuy ànd liggéey waaye kenn ki moom man-manam ci qualité yu suufee rek la féete ki ci des moom qualité yu mag yi rek la mën a ñaw wala la mën a liggéey boobaa dañ naan dëgganut lu may li ëpp ci li ñuy liggéey day qualité bi gën a suufee boobaa dagan na ndax lan ndax dañ jàpp ne ki man ki am man-manu defar qualité bu kawe moom mën naa am man-manu defar qualité bu suufe ñett ñeenteelu chart bi ci gàttal mooy bu ñu xasee ne dañu ànd liggéey dañu daan doole lañu waxoon ca buñ tegoon ne dañu liggéey ñoo yam kenn ku ci ne lu toll ne li ngay liggéey lu toll noonu bu bénéfice amee loolu ngay am bu fekkente ne yow lu tollook suus ngay liggéey bu xaajee liggéey bi ñetti xaaj benn liggéey bi yaa koy liggéey ñaari li ñaar yëpp sa moroom mee koy liggéey dañ naan bu bénéfice amee noonu lañ koy seddoo da ngay jël benn sawaay ji sawaay ji ci des jël ñaar loolu moo gën a siiw donte sax am na ñu ko chartut am na ci mësëb bi ñu ko chartut waaye loolu mooy li gën a siiw ñi ko sàttul nag li tax sartuñ ko mooy dañoo gis ne yenn téere bi binduñ ko ci yenn ci mag yi magi masab bi yaxaluñ ko ba noppi it euh, luñ mën a luñ mën a am xalaat la daal luñ mën a am xalaat la luñ mën a am xalaat la ne rek force yéen a toll yéen a tolloo lu ngeen liggéey ba noppi kenn ku ci ne lu mu liggéey rek lu toll noonu lay am ci bénéfice bi nee nañ loolu ñu mën a def ijtihaad la am na lu ñu tuddee charikatul udul mooy tolloog fii suñu réew yi wala suñu réew mii notaire dañu gis ne ñoom dañuy jël bureau kenn ki mën na xëy ba guddi ki ci des ñëw ñëw toog lu tuuti te bu bénéfice amee ñoo koy bokk loolu boo jàppee charte bi da nga naan dëgganut waaye fekkee da ngaa jàpp charte da ngaa jàpp ñeneen nag moom bu liggéey bi tolloowut tamit mën nañoo tolloo ci bénéfice bi da naan dagan na kon buñ ñu di yëngu lii cosaan mooy duñ soxla financement masala ñaari yenukat mën nañoo bokk ne nañuy xëyanoo ca marché ba bu ñu yenoo lu ñu am bu ñëwee teg bokk ñaari tailleur ñoo xam ne ñoo bokk benn kër kenn ku ci ne am sa machine bopp mën nañ ne nañ bokk liggéey lu ñu am buñ teg ci taabal ji bokk loolu mën naa nekk nga xam ne soxlawuñ financement léeg nag ñu soxla financement léeg-léeg ñu soxla financement lu mel ne koo xam ne dangaa bëgg ubbi atelier boo xam ne bu mag la nga xam ne soxla na financement soxla na ñu indi capital boobaa nu muy demee dañ naan loolu dagan dara nekku ci mën nañoo teg capital ba noppi ànd liggéey waaye nag bu boobaa kenn ku ci ne la nga teg ca capital lu tol noona nga war a liggéey lu tol noona ngay am ci bénéfice bu perte di am lu tol noonu ngay perte lu tol noonu it ngay garante lu toll noonu ngay garanti kon bu fekkonte ne day societé boo xam ne kenn ku ci ne li li li li ñu jàpp ne moo war a sottal liggéey bi mooy 4 million ñaar si yëkk ko kii joxe 2 kii joxe 2 ñu ne nañ bokk ànd liggéey bu bénéfice amee mën nañ ko séddoo loolu dara nekku ci bu fekkonte ne nag kii dafa joxe 1 million cinq cent ki joxe cinq 500 mille rek. dañ naan dañuy xaaj liggéey bi ñeenti xaaj ki joxe 500000 liggéey benn benn xaaj bi ku joxe 1 million 500 liggéey ñetti xaaj yi ci des yëpp bu bénéfice amee ñu xaaj ko ñeenti xaaj ki joxe woon 500000 ñu jox ko benn ki joxe woon 1 million 500 ñu jox ko ñett yi ci des kon daal capital bi saa wuutee rek liggéey bi noonu lay wuutee waaye bénéfice bi tamit noonu lay wuutee. gaarante bi it noonu lay demee ñaar ñu xas bokk moom kenn ku ci ne yéenay séq gaarante bi ci misaal dañuy wax ne bu fekkoon ne dangaa bokk ak di ñaw jël ab tiise dem ba koy ñaw far am aajo dem di ko faje sa moroom ñëw commencé koo ñëw far mu yàqu yéen ñaan ñëpp koy bokk gaarante yéen ñaan ñëpp koy bokk fay ndax loolu la sharika di jariñ société bokk ànd liggéey loolu lay jariñ kon loolu mooy fekkente ne société bi dafa soxla financement léegi léeg mu soxla ay jumtukaay léeg-léeg ñu créer entreprise boo xam ne day soxla ay jumtukaay ci misaal atelier boo xam ne dafa soxla moyen de transport soxla kër soxla ay jumtukaay yu ñu liggéeyee léegi yàlla dogal ñett ñi ko séq kenn ki am na kër kenn ki am na oto kenn ki am na ay jumtukaay wala sax kenn amu ko ci waaye dañ leen koo sas dañ ne diw sàngam wutal ñu kër diw sàngam wutal ñu oto diw sàngam wutal ñu ay jumtukaay bu boobaa ndax loolu dagan na wala daganut ñu ne dañu xool rek kenn ku ci ne lim indi buñ ko doon xayma ci boo ko doon luyee nu muy tollool oto bii boo ko doon luyee nu muy toll kër gii boo ko doon luyee nu muy toll jumtukaay yii boo ko doon luyee nu muy toll bu fekkente ne ñoom ñëpp tolloo ci bu ñu ko doon luyee ba noppi ñu ne dañ ciy ànd liggéey bu ñu amee bénéfice tolloo ci daggan na ndax yëpp a tolloo kon bénéfice bi mën naa tolloo bu fekkente ne tolloowuñ bee nga koo luyee deux cent mille bii cent cinquante bii cinquante mille ba noppi ñu ne dañ ciy ànd liggéey rek bu ñu noppee séddoo bénéfice bi tolloo ci dañ naan dëgganut ndax li ngeen joxe woon tolloowut kon toujours ñoom dañuy wax ne tolloo gi mun a ñàkk léegi bu yàlla dogaloon mu am nag mu am ba pare mooy ñoom waxuñ ci dara kenn ku ci ne da indi rek ba bénéfice ba bénéfice ba amee ñu bañ ko ñu bëgg koo séddoo ci mësal bi dañ naan loolu du dagan dañuy jàpp ne kon dañ koy dab dabaatal ni ñu koy dab dabaatale mooy dañ koy xayma dañuy xayma kenn ku ci ne li fi indi woon lu muy tollool bu ko defee ka ci ëppale ñu delloo ko ñu ràdd ko ñu delloo ko. nañ koy defee yomb na mooy dañ koy difi dañuy diffuser lépp rek buñ noppee xool kenn ku ci ne cër bi nga amoon lan nga ëppale woon sa moroom ñu joxaat la ko ñeenteelu charte bi te mooy mooy bu ñu bokkee di ànd liggéey it loolu li muy firi mooy dañoo war a awante dañoo war a dimbalante dañoo war a def solidarité moo tax bu ñu nee dañuy bokk liggéey ba noppi kenn ki lànk ne du liggéey moom day toog rek dañ naan société bi baaxut loolu moo tax Ibnu Arafa dañ koo laajoon ne ko ñaari yenukat bu ñu ne woon dañuy xëy dem ca marché ba lu am bokk yàlla dogal kenn ki day di xuloog benn waaye ne ko yow waa naa ne dootuma la yenulati moroom ji ñëw yenul ko ba noppi mu ñëw ñu ne ko aywa nañ teg bokk dañ naan société bi yàqu na yéen moom entreprise su ndaw si ngeen créé woon yàqu na ndax lan ndax ba sa morom ji waatee ne du yenul kii nga yenul ko rek foofa bokk amatu fa sens kon bokk yi li ñu jublu mooy dañuy awante kenn ku ci ne foo nekk day mel ne yaa fa nekkal sa moroom loo mënta def it day mel ne sa moroom mën na koo def léegi bu yàlla dogaloon nag ñu ne waaw kon léegi nañ bokk ànd liggéey nañu def solidarité waaye yàlla dogal ñu liggéey ba mu yàgg kenn feebar ci wala kenn tukki ci dañ naan bu fekkee feebar bu gàtt la wala tukki bu gàtt nañ ko xaar ma mm, du ci doon dara bu fekkee feebar bu gàtt la wala tukki bu gàtt lañ dëppoo woon rek mooy continuer bu bénéfice bi ñëwee dañuy seddoo nañ ko waxee woon bu fekkee day feebar bu yàgg nag wala tukki bu yàgg lu mat fukki fan jëm kaw kii nag kii fi toogoon rek di liggéey nu ñu def ak moom am na ñu ne day dañuy day jël ujratul amal bu moroom ja ñëwee ba bénéfice am dañ naan ko yow kat ginnaaw sa moroom mii daa feebaroon lu ëpp fukki fan wala dafay nekkutoon te yaa liggéey liggéey bi yépp dañuy xool tey boo fi nekkutoon ñu jëli woon keneen ne ko liggéeyal ñu lan lañ ko war a fay bu nee nàngam lañ ko war a fay ñu ne ko kon boog jëlal nàngam lii ñu fay la ko bu ko defee li ci bénéfice bi nga séddoo ko ak sa moroom mii fi nekkutoon wala kii feebaroon ci misaal atelier ñaw la ñaw euh, kenn ki feebar moroomam daal di ñaw téeméeri yére wala kenn ki tukki moroomam di ñaw téeméeri yére bi mu ñëwee bénéfice bi tege dafa am ci borom xam-xam ñoo xam ne dañ ne day jël ujuratul amal dañ naan bu ñu woowoon keneen mu ñawal ñu téeméeri yére téeméeri yére lu ñu ko war a fay ñu ne ah. xanaa lu mu gàtt-gàtt dañu ko fay deux cent mille moom deux cent cinquante mille ndax yére bu ne xanaa lu mu gàtt-gàtt war na koo mën a ñawee bu yombee ba yomb war na koo mën a ñawee deux mille cinq cent ñu ne ko kon boog jëlal deux cent cinquante ñu fay la ko léegi la des ci bénéfice ba nga séddoo ko ak sawaay mi fi nekkutoon wala mi feebaroon loolu mooy ujratul amal am na ñu ne déedéet du jël ujratul amal waaye faa idatul amal lay jël liggéey bi avant ñu koy liggéey amoon na valeur biñ ko liggéeyee ba noppi am na beneen valeur masalan tissu yi avant ñu koy ñaw buñ ko xaymaa mën nañ ne mën nañ koo amee ci deux cent mille buñ ko ñëwee ba noppi nag ba mu jekk buñ ko doon jaay mën nañ koo jaaye cinq cent mille kon boobaa ñi ne day jël faidatul amal mooy dañuy jël trois cent mille jox ko nga xam ne moroom ja fi nekkutoon wala ka feebaroon du am dara kon ñaari wax yooyu moo ci am wax wax ji gën a dëgër nag mooy day jël ujuratul amal dañuy xool rek bu ko keneen liggéeyoon lu toll nan lañ koy fay ñu fay ko ko bu ñu bokkee di liggéey lépp loo xam ne sa moroom jël na ko rek nekkul ne moom rek la engagé waaye yéen ñaar ñëpp la engage loolu ñu xam ko mooy lum ca warlu yow it daf lay war garante bi yéen ñaar yéen a koy séq ñeenteelu société bi am ci masabu imam malik ma li ñuy tudde charikatu zimam bi ma njëkk a wax mooy da ngeen teg alal ñaareel bi mooy dangeen a teg doole ak man-man bii nag moom alal amu fi doole amu fi yéen daal li ngeen bëgg mooy da ngeen a bëgg a bàyyi rek saa yu leen xëyee ànd dem ca marché ba bu ngeen gisee marchandise leb ko dangeen koy leb bokk leb dem bokk ko jaay jël capital ba delloo ko ka leen ko lebaloon bénéfice ba ngeen cay am ngeen séddoo ko ndax loolu dagan na wala daganut ci masab imam malik am na ñetti anam benn anam gi lañ naan dëgganut ñaari anam gi dagan na benn anam gi mooy bi dëgganut mooy bu fekkente ne da ngeen a ci ne da ngeen di dem rek marchandise mu ngeen jàpp ne tey daal bu ñu ko jaayee dana dox ñu jël ko dem jaayee ko waaye ràññit léwu leen moom nañ dem rek bu fekkee téléphone yee dox ñu jël bu fekkee tuche yee dox jël bu fekkee nangam ma dox ñu bu ñu demee bu ñu ko jaayee ba pare dem delloo kañu ko jaayoon xaalisam li ñu am ci bénéfice ñu séddoo ko mësëb bi nee nañ loolu dëgganut ñu bari nag ñu ngi koy def rawatina ñi nga xam ne dañ leen a xamee woon ci wàllu commerce ba mu yàgg ñu daanu dañ koy faral di def dañuy def benn coalition boo xam ne loolu rek mooy seen liggéey mësëb bi nee nañ loolu dëgganut ñu ne leen li tax dëgganut ñu ne am na ñaari sikk ñaari sikk ñaari ayib mooy day mel ne kon bi ngeen di dem yéen ñaar ñëpp kenn ku ci ne dafa garanti sa moroom loolu la ñuy wax euh, loolu la ñuy wax ad damaanu bi jon kenn ku ci ne da ngaa garanti sa morom loolu dëgganut bi ngeen amee bénéfice it ba kenn ku ne jox sa morom day mel ni kenn ku ci ne da lebaloon sa morom loo xam ne da nga ci wut intérêt asalaf bi man faa loolu dëgganut ñaareelu anam gi dagan mooy tey bu ñu ràññee woon marchandisme ne tey moom dañuy dem ca marché ba jënd téléphone jënd ay téléphone jaay ko nee nañ loolu dagan na dañuy dem dañuy dem lebi téléphone jaayi ko jox kañu ko jaayoon séddoo bénéfice nee nañ loolu dagan na liñ ko layalee nag bari na waaye waxtu wi mu ngi sori ñetteel bi mooy ñu ne dañuy dem jël waaye kenn ku ci ne li ngay am rek li ngay am ci bénéfice lu toll noonu ngay garanté loolu it dagan na am na lu ñu tuddee charikatul wujuh bari na waaye damay commencé tënk sharikatul wujuh dañ cee wuute am na ñu ne mooy xeetu bokk gi njëkk a wax am ñu ne beneen xeetu bokk la waaye li gën a siiw ci mësab bi mooy koo xam ne dañ koo xamee ci commerce commerçant bu siiw bu jëlee marchandisum jaaykat bu siiwut teg ko ci palaasam jaay ko loolu la ñuy wax sharikatul wujuh ndax dagan na wala dëgganut nee nañ dëgganut te loolu it ñu ngi koy def lu baree bari jël marchandise indi ko ci koo xam ne baaxoo nañ koo xam ci commerce ci place bu mag ne ko jaayal ma ko lu ñu am bénéfice séddoo nee nañ loolu dëgganut ñu ne leen lu tax dëgganut ñu ne dañ ciy xool ñaari mbir danañ ci xool ki nga xam ne moom ngay jaayloo commerçant bi ngay jaayloo nii commerçant bu mag bi ngay jaayloo kenn xamut seen diggante fu mu mujj xamuñ la ñaata la war a am loolu loolu lañ tuddee al ijaaratul majhula ñaareel bii mooy kii ñëw di jënd si liñ baaxoo xam mooy ku ñëw ci place bu mag da ngay jàpp ne lu am qualité rek lay jaay waaye ñëw ci place bu mag mu jaay la ndikite yow marchandise um kuy kuy kuy kuy kuy taaba taaba rek la la jaay loolu mooy tax ñu ne dëgganut ndax tadlis da ci am ak lëntal da ci am ndax kii ñëw di jënd day yaakaar ne lu am qualité lay jënd day yaakaar ne yow mi ko jaay am nga ci rol bu mat sëkk fekk demewul noonu yow marchandise um keneen ngay jaay bu am nag bu xasoon am ba pare léegi nuñ koy doxalee dañ naan ko yow mi ko jaayal yow commerçant bi mag bi jaayaloon commerçant bu ndaw bee wala kee nga xam ne day taaba taaba rek yow mi ko jaayaloon dañ lay neexal tey bu ñu wutoon keneen mu jaay ko luñ koy neexal lu toll noonu lañ lay neexal léegi ka jotoon a jënd ba dem nag yaakaar ne lu am qualité la jënd kooku nu ñuy def ak moom ñu ne kooku nu ñuy def ak moom mooy dañ naan ko am nga choix yaay tànn. bu la neexee nga wéyal njaay mi bu la neexee nga ñëw delloosi ko bu fekkente ne marchandise mi mi ngi tege ba tey bu teg bu fekkee marchandise mi tegewut xëy na lu ñu lekk la wala lu ñuy utiliser utiliser nga ko lu ñuy consommer consommer nga ko bu boobaa ñu ne dañ lay laaj lu mu la ko jaaye woon boo nee nangam ñu ne lii kat gën jaa néew nangam lay jar kon na la delloo lu li ëpp ci lim jël bu fekkee lu ñu daan jaayee 15000 la mu jaayee la ko 20000 kon dañu naan la na la delloo sab 5000 nga dem. am na beneen sharika bu am bu siiw boo xam ne ñëpp xam nañ ko muy sharikatul ba mooy li ñuy tuddee xiraat moom moom ñaar ñooy daje koo xam ne dafa am man-man am expérience xam domaine bi muy liggéey waaye nag yorut xaalis ñëw nga financé ko ne ko demal liggéey loo am ñu bokk. nuñ koy bokke yi yéenay seet ndax da ngeen koy xaaj ci digg bi ndax dangeen koy xaaj ñetti xaaj mu jël ñaar nga jël benn wala nu ngeen ci dëppooy rek baax na loolu la ñuy tuddee mudaaraba moom nag am nay chart bokk na ci chart yi ci ëpp solo mooy capital bi nga koy jox na doon wurus wala xaalis bu doon suñu jamono ji mooy na doon monnaie CFA wala euro wala nangam ñoom dañuy wax ne sañoo koo jox marchandise sañoo koo jox marchandise ci mësab Imaam Maalik loolu la ñuy wax loolu mooy lan tey boo amoon marchandise ñëw jox ko kenn ne ko demal jaayi ko loo am ñu bokk loolu lañ naan la dëgganut fii nekkatul mu daara ba waaye ijaara la ijaara mooy da nga koo liggéeyloo rek boobaa nag da nga koy wax boo ma liggéey lee nangam laa lay fay waaye doo ko wax ne ko demal liggéey loo am ñu bokk kon li nga koy jox day nekk wurus wala xaalis bu doon suñ bu dee suñ jamono ji ñu ne day nekk day nekk monnaie ñaareel bi mooy bénéfice bi nañ ko xam sañoo jox nit financé ko ne ko demal liggéey boo amee bénéfice boo boo noppee ñu waxtaan ci comme ni ñu koy waxee ñun demal liggéey rek mag yow far boo noppee ñu waxtaan ci loolu dëgganut il faut bénéfice bi dafa war a xam ñaata la ciy am bu koy xamit bu bu ko bu ko dog bu ne ko danga nga ci am 5000 wala 100000 wala nangam déedéet. nee ko boo pour chantage nga ko jox pour chantage danga am genn wàll ga wala bu ñu ko xaajee ñetti xaaj danga am benn ba wala da nga da nga ci am 10 pour cent 5 pour cent 40 pour cent 60 pour cent noonu la ñuy xaymaa bénéfice ci société waaye kenn du ko xaymaa ci loo xam ne euh, lu leer lay doom bu dee ci masabu imam Malik nee nañ boo defee mu daara ba jox kenn ne ko dama liggéeyal ma sañoo koo wutal ab àpp jox financé nga ko ne ko demal liggéeyee ba noppi naan ko damaa bëgg nag nga indi bénéfice bi fii ak ñetti weer dëgganut ci mës bu imam mu daara ba kenn du ko sàkkal ab dele mu wuteeg nag xanafiyee ñoom daganal nañ ko waaye mës bu imam Malik loolu dëgganal nañ ne ko it ci nàngam rek nga sañ liggéey financé ko ci njaayum téléphone mi rek nga yem wala ci njaayum tiise mi dëgganut ci mës bu imam da nga koy bàyyee ak boppam lu mu jàpp ne dox na ci marché bi rek mu jënd jaay yow li la ciy ñor mooy bu amee bénéfice bu ñëwee ngeen xayma dëgganul tamit nga naan ko demal yëngu ji boo ñëwee boo ñëwee ci bénéfice bi danaa ci teggi lee ma ci teggee lee ba pare nag ñu soo ko séddoo lii loolu dëgganut di am loo ciy beral sa bopp wala loo ciy sartal sa bopp dëgganut comme ni muy dagane mooy boo ko joxee mu liggéeyi bu liggéeyee ba noppi bu ñëwee ngeen xool la ngeen séqoon la ngeen waxoon ngeen doxalee noona bari na ay àtte yoo xam ne jàpp naa ne xam nañ ko wala boog siiw na loolu mooy société yi siiwoon ci fiq am na nag yeneen musaaraa am na musaaqaat am na mugaarasa am na waaye loolu day gën a guddal waxtaan wi ñu joxe rek ay exemple ci société yu bees yi xew xam ngeen bu njëkk ci téere yi fiq yi liñ baaxoo woon mooy bokk ànd liggéey ñaar ñoo koy def moo ëppoon léegi nag am na ay société yu am ak yi entreprise yoo xam ne mbooloo koy séq na ci banque yi rawatina ci banque islamique yi kon nañ xame woon mooy yëfi ñaar yëfi yëfi ñett léegi nag yëfi mbooloo la nañ xame woon mooy da ngeen di bokk man-man bokk alal wala yu mel noonu léegi nag da ngeen dañu gis société boo xam ne dafa boole yu bare baree baree bare koo xam kenn ku ci ne ak la def léegi it bu njëkk société yu baree bari droit wala loi nosu ko woon léegi nag dañ koo nos nos gi ñu ko nos nag lislaam da ciy mën a jariñu xool li ci dëppook moom mu jël ko li ci dëppoot ak moom mu bàyyi ko bu ñu demee ci banque islaamique yi am nañ ay xeetu société yu ñu def mudaaraba bi ñu mujjoon a wax sànq mooy financer nit pour mu liggéey ñoom danañ ko faral di def banque islamique yi danañ ko faral di def danañ def li ñuy tuddee mudaaraba waaye boobaa mbooloo koy séq mbooloo am na ci ñaari anam yu ñu koy defee mooy banque bi day dem jël ci ñi yor alal dafi day day dem jël ci ñoom financement dem xool ñi nga xam ne dañoo am ay projet mën a liggéey mu financer leen ci nga xam ne moom day mel ne day wuutu borom alal yi ci borom projet yi bu ko defee nag ñoom ñépp bu ñu bokkee ànd liggéey bénéfice lu ñu am séddoo nga xam ne banque bi foofu moom financé wu defut dara waaye day organiser yëf yi rek daf koy organiser loolu mën naa nekk loolu mudaaraba ba jamaa yi lañ ko tuddee am na beneen façon mu daara ba boo xam ne moom da ciy bokk day teg bu gaa yi teg day teg ba noppi nag wut wut wut projet boo xam ne moom moo ciy liggéey wala mu dem wuti ñoo xam ne moom ñoom ñooy seq projet bi bu ko nag liñ bokk ànd liggéey bu noppee xool ni ñuy séddoo bénéfice bi nga lépp dañ ciy waxtaan ba juboo ci njëlbeen am na lu ñu tuddee almudaarabal muntahiya bi tamlik mooy nga dem ci banque bi mu financé la ne la demal liggéey léegi nag boo liggéeyee boo amee bénéfice boo ñëwee danaa ci jël dara loo xam ne dama la koy dencal nee nga commencé koo jënde projet bi léegi saa yoo amee bénéfice ma jël ca dara dencal la nga koy financé ba keroog boo demee ba financement bi jeex ma bàyyee la projet bi nga dem ak sa bopp loolu la ñu tuddee almudaarabal muntahi bi tamlik banque islamique yi dañ koy faral di def am na lu ñu tuddee sukukul mudaaraba moom dañ koy faral di def ci xeetu société la mooy dañuy am projet daal di génne ay chèque yu baree bari yoo xam ne xeeti action lay doon léegi ku ci jënd rek day mel ne bokk nga ci ñi financé projet bi léegi nag projet bi yéen ñëpp yéen a koy séq bokk bu ngeen amee bénéfice it kenn ku ci lu toll ak lam financé moom lay am am na it yeneen sharikaat yu ñu def banque mën naa gis ko am projet industriel wala lu aju ci wàllu commerce wala lu aju ci wàllu mbay mu finance mu mu teg nga teg ngeen ànd liggéey ba keroog projet bi jeex tàkk ngeen tàggoo loolu mën naa nekk am na leneen lu mën a nekk mooy ngeen waxtaan juboo ci ne projet bi dañoo bëgg dañ cee bëgg a ànd dañ cee bëgg a liggéey waaye nag man damaa bëgg bu yàggee ma moom ko man client bi damaa bëgg bu yàggee ma moom ko léegi boobaa banque bi lu muy def banque bi bu la financé wala bu ngeen bokkee financement bi di liggéey bu ngeen amee bénéfice bu ngeen ko waroon a séddoo dañ koy xaaj ñetti xaaj ci ci misaal banque bi jël ñett yi ñaar yi moom ci bénéfice la bokk benn bi mu mu dencal la ko mu dencal la ko nga xam ne yow benn rek nga cee am loolu mu lay dencal di la ko dencal di la ko dencal bu demee ba mu yàgg nag mooy nekk la nga jëndee wàllam ci projet bi loolu mën naa nekk kon loolu ci ay xeetu société yu bees yu xew la nit ñi nag léegi ñoom it créé nañ ay société yu bees yu baree bari yoo xam ne kenn xamul lu li ñuy tuddee ay société par action société yi nga xam ne dañuy teg dañuy am ay action yoo xam ne dañ koy dañ dañ koy dañ dañ koy lancé action bu ne nangam lay jar léegi ku jënd action rek day mel ne participer nga ci capital bi loolu dafa bari lool ndax dafa mën a dafa nekk loo xam ne dafa mën a xeetali économie réew daf ko mën a yëkkati ndax day tax lu ñu song rek dañ koy mën a daan bu ngeen gisee yenn aéroport yi yenn usines yi ba ci yenn projet yu mag yi lu jëm ci wàllu média beg yu mel noonu yu baree bari sociétés yi ñoo koy financé par action lay nekk da ngay gis ci benn société ñu naan la diw sàngam am na fa nangam pour cent diw am na fa nangam pour cent ndax dafa bari lu mën a lijjanti léegi nag projet boo mën a bokk bu mu mën a doon ci xew ngir nga xam ndax dagan na wala dëgganut jàppal yii ma lay waaj a wax ci lay tëje waxtaan wi ndax projet bi lislaam nangu na ko wala nangu ko takk-takk yi moo koy tënk takk-takk bi ci jiitu mooy lijjantil projet bi ci lu mu bëgg a yëngu lu mu bëgg a yëngu ndax daa fas yéene yëngu ci riba wala ci jëflante ci lu araam wala déet wala moom li mu bëgg a yëngu rek mooy lu dagan ndax ci lislaam dëgg nun ngay bokk ci projet wala entreprise wala société boo xam ne dafay liggéey ci riba daf koy leble baa mu koy leb lu mel ni banque yi jëfandikoo riba wala société wala entreprise boo xam ne day produire wala day defar sàngara wala muy defar dorog yooyu yëpp dëgg nga ciy bokk kon société daal booy bokk da ngay ndax lu ko tax a jug la muy yëngu ndax lislaam nangu na ko wala nangu ko léeg-léeg moo tax kuy waaj a dugg ci entreprise wala ci ab société dana baax trop ngay laaj di wut ay information yu doy dana baaxit ngay laaj ndax société bi wala entreprise bii may waaja dugg état nangu na ko wala bokk yoon nangu na ko wala nangu ko ndax loolu mooy tax ëllëg bu jafe-jafe amee yoon mën laa défendre ndaxit it bari na ci yoo xam ne lislaam araamal na ko nangu ko yoon bi mu ñëwee moom it daf koy bañ lu mel ne jaay ay sàngara yu mel noonu kon boo lijjantee ndax lislaam daganal na ko wala daganalu ko lijjantilal lijjantil tamit ndax yoon nangu na ko wala nangu ko li ëpp ci société yi ñuy bokk ñun li ci ëpp mooy li ñu ñuy tuddee asharikaatul muxtalita day mooy société yi nga xam ne wala entreprise yi nga xam ne day boole lu baax ak lu bon booy xool buy lancer projet bi mën naa nekk projet bu dagan daf naan la damaa bëgg yëngu ci suqali mbay wala damaa bëgg yëngu ci wàllu commerce wala ci wàllu industrie wala yu mel noonu waaye nag bu ñu demee ba ca biir danañ ca gis muy jëflante riba ak yu mel noonu masalan mën naa nekk société boo xam ne ci ci bay lay yëngu waaye nag am na crédit bu bari wala am na bokk som bu baree bari ci banque yi yiy jëf yiy jëflante riba bu boobaa ndax bokk ci daggan na wala daganut ñaari wax am na ci ci boroom xam-xam yu bees yi am na ñu ne dagan na waaye nag bis boo demee ba jot sa wàll ci bénéfice bi te xam intérêt ba toowu intérêt ba nam toll da nga koy seppi nga fexe ba bu ko jëfandikoo boo xamee nam toll boo xamul nu mu toll nag ñu ne dangay fexe ba jël xaaj bi yépp xaaj bi nga am li ngay am ci bénéfice da nga koy xaaj fexe ba yow boo ko jëfandikoo walla Euh, la ëpp ca bénéfice ba yow daal fexeel ba sax na sa xel dal ci ne yow moom lii nga yor moom intérêt amu ci intérêt amu ci riba amu ci lu mel noonu ku mel ne Ibnu Usaymin loolu lay wax am na it ñoo xam ne loolu la noonu lañuy ñuy doxalee am na ñu ne déedéet bépp société bu xas taq rek bu xas taq rek boo xam ne dañuy xam ne day jëflante riba wala muy yëngu ci lu araam société bu mu mën a doon bu xasee taq rek dëgganul nga ciy bokk wax jii nag boroom xam-xam yi ëpp ci lii lañu ànd lii lañu wax ñooy leen ndax lan ñu ne ndax lislaam booy xool ni mu araamale riba daf cee taral daanaka bépp bunt bu lay yóbbu ci nga mën a jëflante riba rek lislaam da koy fatt kon léegi xam nga ndax société bi dagan na wala daganut lu ci des mooy li may joxe li may participer nan laa koy joxe lijjanti ko lijjanti ko li ngay participer na nekk lu ñu mën a xayma na nekk lu ñu mën a tuddee alal ci lislaam mën naa nekk monnaie xaalis mën naa nekk pàkk mën naa nekk ay terrain ay terrain mën naa nekk marchandise li ngay participer mën naa nekk loolu lépp ndax loolu waxoon nañ ko ci charikatul amwaal léegi nag bu fekkee da nga tënku ci masabu imam Malik nga bàyyi charte bañ la waxoon nga bàyyi ci xel ci masabu imam Malik waxoon nañ la ñaari monnaie yu ba bokkut màndaxe bokkut luñ leen di peesee wala lu bokkut luñ leen di weccee kenn sañu koo participer ñaar yu bokkut kii joxe euro kii joxe CFA loolu dëgganut moo tax nag charte bi ci masab imam bu ñu ko jëlee moom ñun ñëpp ay am jafe-jafe rawatina bu ñu bëggee bokk ci entreprise yu mag yi nga xam ne dañ leen di tuddee euh, entreprise euh, yi nga xam ne dañ leen di tuddee multinationale nga xam ne daanaka ay xëyit yu baree bari lay boole yooyu moom da ngay gis ku participer euro ku participer nangam ku participer nangam waaye bu ñu jëlee ci masabu imam Malik mooy dëgganut dëgganut ndax ñoom nee nañ loolu mën na daf lay mën a indi ci carte daf lay mën a indi ci danger te it da boobaa da ngaa boole ñaari bokkul mooy da ngaa bëgg a boole bokk ci société ba noppi weccoo def échange te loolu dëgganut léegi it li nga li nga joxe ndax lu toll noonu ngay garanté wala déet nañ ko lijjanti entreprise boo man di bokk li ma joxe ci ay action ndax lu toll noonu laay garanté wala déet bu fekkente dañ laa wàccal ak garanté wala ñu ne la li ngay garanté gën naa néew loolu rek dëgganut ci ma sëb imam Malik bu dee la ngay perte moom toujours mooy lu toll ak la nga joxe rek loolu ngay perte ñetteel bi mooy nañ lijjanti nañ lijjanti responsabilité yi nan lay demee bu ma xasee bokk ci entreprise bi wala ci société bi léegi sama responsabilité fan la commencé ak fan la yem mooy li ma doon wax léegi rek ndax ci masab imam Malik dañuy wax ne lu tolloog li nga joxe li to lu toll noonu ngay liggéey bu bénéfice amee lu toll noonu ngay am bu perte amee lu toll noonu ngay perte bu garante am lu toll noonu ngay garantie kon bépp société wala bépp euh, entreprise boo xam ne garantie gi dafa am rëq-rëq dañ koy bañ léegi kon xam nga projet bi nu mu fa demee dagan na xam nga nooy joxee xam nga say responsabilité fi mu yem léegi li ci des mooy nga xam léegi nag bénéfice bu amee nuñ koy séddalee lii may waaj a dugg naa laaj bénéfice bu amee nuñ koy doxalee loolu dañ naan pour nga xam ko ci mazhab bi ak ci fiq yépp sax laajal ñaar yi bénéfice bi nu muy demee bépp dëgganul ngay dugg ci benn entreprise boo xam ne xamuñ bénéfice ba nu muy demee dëgganul ndax dañ naan bénéfice bi moo tax nga dugg ci mooy almaaqudu alayhi moo tax nga dugg ci kon boo ko xamut su yow loola yàqu na sañoo cee sañoo cee bokk kon nañ ko xam buñ koy xamit bu nekk bu mu nekk loo xam ne dañ koy dañ dañ koy ràññeetle masalan nga bokk ci entreprise boo xam ne dañ naan naan la weer wu dee da nga am 5000 wala semaine bu jot da ngay am 2000 loolu dëgganul ràññeetle bénéfice dëgganul bénéfice day nekk mushaa dañ naan la saa yu ñu amee nangam danga nga ci am nangam da ci am genn wàll wala ab ceer wala ab kaar da nga ci am 10 pour cent 5 pour cent 40 pour cent 30 pour cent loolu moo dagan waaye daggal la ko ne la. saa yu nangam amee da nga am nangam loolu dëgënul ci benn mashab nag ci benn mashab dëgganul léeg-léeg bu ñu nee mashab imaam Malik gaa daw yaakaar ne dañ ko fekk feneen waaye lii moom xaw ma ko ci beneen mashab bu mu dagan euh, ndax loolu bu amee bu fekkente ne dañ ne la semaine bu jot da nga am 2000 wala weer wu dee danañ la jox 5000 wala yu mel noonu. nga xam ne dañ la ko ràññeetleel xam nga yow li ngay am ba pare loolu boroom xam-xam yi dañ ne dafay mel ne lépp gu ànd ak intérêt la day mel ne ki créer société bi dalaa bëgg a lépp waaye nag daf koo jaarale ci anamuk lu mel ne ku ku créer entreprise ndax yow boo xasee joxe ba noppi xam li nga ci xam ne yow la nga joxe woon force da nga ciy jotaat ba noppi danga amaat bénéfice bu tool nangam moo nga leble woon ba noppi ñooy la dañu la ci tegal intérêt ñooyam moo tax dëgganul ñaareel bi it mooy ku def loolu mooy bokk amatu fa ndax lan ndax mën nañoo am entreprise boo xam ne dafa warlul ñi ñi ci investir daf leen a warlul ne leen danaa leen jox dat sàngam saa yu jotee danaa leen jox sàngam yàlla mën naa dogal dat sàngam jot mu bénéfice ba toll noonu rek léegi mu jox ko ñenn ña wala mu jox ko ñii bàyyi ñii boobaa dañ naan bokk amatut ndax bi li ni ñu war a bokkee capital noonu la ñu war a bokkee bénéfice bi ni koy bokkee nag mooy ci ay pourcentage lay doon nga xam ne léeg-léeg bénéfice bi mën naa bari lool léeg-léeg mën naa yamamaay léeg-léeg mën naa néew bi ci mujj nag mooy entreprise booy bokk société booy bokk dëgga nul ñu lay garanteel bénéfice wala ñu naan la amul risque société mook risque ñoo ànd ay masuuliyaat la ay responsabilité la ay garanti la bokk ànd liggéey la di yaakaar ne bénéfice mën naa am ñu bokk perte mën naa am kenn ku ci ne la nga joxe woon lu toll noonu nga perte ko waaye dugal la ci entreprise wala société boo xam dañ naan la amul risque wala ñu ne la lii moom bu soobee yàlla boo ci duggee bu soobee yàlla sax ñi koy ñi koy def loolu du lañ ci fekk lii moom maa la ko garantir boo ci duggee force weer wu dee danga am nangam dëgganul ndax loolu moom lañ waxoon fee day dikkaat rek dañuy jàpp ne kon dalaa bëgg a lépp nga xam ne kon xam nga ne sa capital da ci jotaat force weer wu dee wala semaine bu jot wala at mu jotit da nga amaat nangam sàngam loolu moo tax dëgganul li dagan daal mooy tawaquwaat def ay tawaquwaat daal ne nañ ànd liggéey am nañ yaakaar ne buñ góorgóorloo weer wu dee mën nañoo am nangam am nañ yaakaar yaakaar ji nag mën naa am mën naa ñàkk am waaye am nañ yaakaar ne bu ñu liggéeyee ba sàngam danañ am nag loolu moom dagan na waaye incha lu mën a xew moom lii danañ ko am nga xam ne ka cee dugg noonu la cee duggee loolu daganut kon daal lépp loo xam ne dafay génne ab société wala ab entreprise ci mu doon lu ñuy bokk di ci ànd di ci liggéey di bokk responsabilité yi di bokk di xool nit ñuy tege kenn ku ci ne la nga teg lu toll noonu nga koy liggéey lu toll noonu bu bénéfice amee nga am ko bu perte amee nga euh, assumer say responsabilité bu garanti amee nga bokk say morom lépp lu koy génne ci loolu rek dañu jàpp ne doon tut société waaye leneen la si ñëpp laxat loolu laa doon tënk maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéglu ci wax ji asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, jërëjëf sëñ Abdul Eh, yaakaar naa waxtaan wi tey moom ab bind la gën a doon ab bind la ci wàll gu am solo ci lenn loo xam ne jëm na ci àttay fiq rawatina suñu jëflante mu jëmoon rek ci wàllu seq ab liggéey seq liggéey war koo bokk anam yi muy amee xeet yi nga xam ne am na ci ak àtt yi nga xam ne mu ngi ci biir indi na ci nag lu yaatoo yaatu loo xam ne waree na moom gëstu na ko dellu na itam ci maraajeex yi ak ay cëslaay yu wóor ci biir gëstu bi kon tom la boo xam ne xam naa duñ ko jéem sax tënkaat ndax waxtu waxat bi waaye bu ñu xoolee rek xeet yi nga xam ne tudd na ko ci wàllu bokku bokku alal wala bokk ab société di liggéey te buñ ko waxee rek mooy ñaar ñoo xam ne dañoo jaxase dañoo boole seeni doole wala boole seeni alal séq benn liggéey ngir la ca war a juddoo ci meññet ñu bokk ko tudd na ci ay xeet yu bari léeg-léeg mën na nekk boo xam ne ñoom ñaar dañuy boole seeni alal kenn ku ne day joxe alal day joxe capital ba noppi bokk itam séqaat liggéey bi kenn ku ne day joxe xaalis ba noppi di liggéey ci liggéey bi loolu benn anam la ci mu dul ci ñaari xeet benn bi nga xam ne sarikatul mufaawada lañ koy wax nga xam ne kenn ko ne sañ def loola sopp day mel na ngaa wut sa morom ci liggéey bi wala beneen xeet bi nga xam ne dañ lay tënk nga ne sañoo def lu dul rek da ngay sàkku ndigal ci ñegeen ñi nga xam ne ñoo ngi saqal liggéey yooyu mooy yi gën a fes ci li nga xam ne moom mooy sarikatul amwaal nga xam ne kenn ku nekk dana joxe capital bu ñu joxee ba noppi ba yëf taxaw kenn ku ne tamit liggéey ci ñoom ñaar nag ñu gis beneen façon boo xam ne moom sarika boo xam ne ay jëmm lay doon kenn ku nekk daal sa sa effort ngay joxe kenn ku nekk dangay liggéey xëy na ñoom amuñ xaalis amuñ capital waaye ñu bokk benn liggéey boo xam ne ñu ñaar ñëpp am nañu xereñ bi di ca liggéey bokk ko mën nañoo bokk benn place bu ñuy liggéeyee bokk di ñaw wala ñu bokk di def menuisier wala ñu bokk di def leneen ci xeeti liggéey yi nga xam ne mënees na ko bokk di ci daan doole te laajut sax léeg-léeg ngay soxla alal léeg-léeg mën na ko bañ a laaj ñu koy tudde sarikatul ab daan léeg-léeg itam ngeen soxla nag financement ngir gën a yaatal liggéey bi wala soxla yenn jumtukaay mu xaw a niroog bi wees woon tuuti nga xam da nga joxe sa alal waaye kenn ku nekk ñëwaat di joxe li nga xam ne moom mooy effort am ci li nga xam ne moom mooy xereñam ba tey mën na dugg sax ci loo xam ne xëy na kenn ku nekk sa compétence bi nga am ngeen séq benn liggéey boo xam ne liggéeyu xel rek lay doon dugg na ci biir sax ko ab daan liggéeyu xel kenn ku ne sa xereñte waaye nag bokk fu mu jëm bokk benn xeet bu mu jëm waaye tudd na yeneen xeet yu bari sarikatu zimam bi nga xam ne ñoom ñaar dañuy xëy rek dem ngir lebi marchandise wala bi nga xam ne moom la ñuy tuddee mudaaraba xam ne kii moom yor na alalam yor na capitalam ki ci des nag moom yor na man-man yor na ak xereñam waaye yor capital ñoom ñaar ñu daje kii finance ki ci des moom di liggéey ñu seet rek lu ñuy déggoo ci bénéfice bi nga xam ne moom moo ciy juddoo bi mu ci jógee nag door a ñëw ci yenn façon entreprise yu bees yi nga xam ne xew na ci jamono rawatina xeeti banque yeeg xeet yenn entreprise yi ci des yëpp nga xam ne tamit lu yaatoo yaatoo waaye kon da ko delloo ci cosaan la li nga xam ne moom la ñu baaxoo xam ci teer yi fiq ñu ko daan tudd di ko jàngale muy ay buntu yaatoo yaatu li am solo rek fii ci sarika bu mu mën di doon wala entreprise yi bees yeeg yëpp li am solo mooy ñu xam ne lii cosaan ci yëf yi mooy kenn ku nekk li nga joxe moom ngay am li nga joxe moom ngay am doo joxe li ngay joxe ba noppi ñu naan la ëllëg dañ lay fay par weer da mbir sàngam lañ lay fay loolu amut li nga joxe moom ngay am dafa nga koy am mooy bénéfice bay juddoo ci bénéfice mooy génn bu fa bénéfice bu génnee ñu xool ñi ko séq kenn ku nekk lan la joxe woon ñu joxal lu toll noonu pourcentage bu toll noonu bu fekkoon 5 cent nga joxe ci rasul maal 5 pour cent ngay am ci bénéfice bi ba joxoon 10 pour cent 10 pour cent ngay am ci bénéfice kon kenn ku nekk li nga joxe rek moom nga war a am ñu xam ne kon foofu waru fee dugg mukk ñu ne société la dañoo bokk di liggéey ba noppi yow bu weer dee da nga may fay temps da may fay nangam yow li ci des nga moom ko loolu daganut loolu rek mooy li nga xam ne lu jar a bàyyi xel la fii waaye bénéfice dañuy xool fii bénéfice bi mooy li am solo fii te kenn ku nekk la nga joxe woon moom ngay am bu perte amee itam perte bi ci kaw ñëpp lay dal amul kenn ku ci gën mettali kenn kenn lu toll noonu la nga joxewoon rek bu perte amee loolu ngay perte boo joxewoon 5 pour cent bu perte amee perte gi noonu lay mettee ci yow noonu lay demee garantie itam ba noonu lay demee garantie bi bu fekkee société bi am na lu ñàkk loo xam ne ci seen jumtukaay wala yu mel noonu ko garantie ci kaw ñëpp lay dal kon loolu mooy mandat gi nga xam ne euh, lislaam tëral na ko ci wàll googu nga xam ne ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi kenn du ci gaañoo muy la darara wala diraar kenn du loru kenn du keneen kenn ku ne li nga joxe rek loolu ngay am ci bénéfice bi bu perte day am ñëppay perte bénéfice day am ñëppay jariñu waaye bu ñu waree garante ci kaw ñëpp lay dal loolu yaakaar naa génn ci benn ci yi nga xam ne moom lañ doon wax moom lañ doon wax ci xeeti e, sarike yi nga xam ne leeral na ko ci biir te benn bu nekk mu ñëw ci ci anam gu yaatoo yaatu ak jotaay ya nga xam ne am na ci léeg sax mu junj yéen mazahib bi ak xilaafaat yi nga xam ne am na ci waaye gën koo tënk nag ci madhab bii nga xam ne mooy madhabu euh, al imam malik nga xam ne moo gënoon tasaaroo fii li mu doon wax lépp ci la ko tënk teewut nag ñëwaat na ci euh, jamono yi tey ak li nga xam ne moom xew na na banque yu bees yeeg banque islamique yeeg nañuy jëflante nga xam ne kenn ku nekk boo ciy dugg war nga bàyyi xel li ngay dugg lan la ñoom lan lañ bëgg nan la ñuy liggéeyee yow naka nga ciy duggee lan nga cay am ndax riba lalu ci wu ca te riba kenn ku nekk xam ne de lu araam la ci islaam ab jullit du ci jëfandiku du ko sañu sañu cee jëflante sañu cee jëflante kenn ci ci anam googu waaye doo fekk sax koo xam ne noonu lay jëflante ngay liggéey ak moom sañoo fekk borom société boo xam ne noonu lay liggéeyee riba da caa rax nga ànd ak moom kon war ngaa xool bu baax ñoom li ñuy déggee lan la nga xool sart yi nga xam ne moom bu koy tënk nak nga ciy duggee ak ban bénéfice ba nak lay demee kon daal sëñ Abdou Khadir ñu ngi lay sant ci leeral gi yaakaar naa lépp luñ ci wax rek lu leeral loo xam ne jaratu sax euh, tënkaat kon ñu ngi koy sant te di ko gërëm ci turu daayira bi daayira Moukhaddamatoul Khidma moom sëñ Abdou Khadir Bousso di ko ñaanal yàlla ci jéego yu am yi nga xam ne mu ngi koy def ci gëstu ak dundal xam-xam euh, yàlla yokk ko kàttan gën a leeral xam-xamam gën koo dëgëral itam te sàmm ko euh, mbokk yi kon ni ko baaxoo rek suba itam dañ fas yéene amaatal benn jotaay boo xam ne day jëm ci beneen bind moom itam beneen bind boo xam ne day jëm ci li ñu tudde almasxu ala al xuffayni wa ala al jabira ki nga xam daa am gaañu gaañu war a sang wala mu war a jàpp naka lay jëflante ak gaañu gaañu boobu naka la koy masaaye naka la koy raxasee ak ci aju loolu lu am solo loo xam ne jar na bàyyi xel moom itam ki nga xam ne moom moo koy doxee mooy sëriñ Mbàkke Abdourahman ci waxtu wi rek incha allah ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon ñu ngi dellu di sant ñëpp te di leen gërëm euh, di sant ñi nga xam ne itam ñoo ñu doon topp ci fu mën a nekk rek ci àdduna bi ak ñi nga xam ne ñoo ko doon jàllale rawatina ci site bi muy GMT TV ak mboolem télévision yi ak euh, rajo yi ak ñi nga xam ne ñooy site internet yi ñu ngi leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay bu baax a baax di dellu di sant mbooloo mi leen wax. wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh